Assalamualaikum suñu mbokk internet yi di safo chaîne chaîne youtube la tempé Events tay mbek tax contentement la am di ñëw fi ci marché Diamaguène di dajé ak sama ben natango di laaj mom xam mom nan la dundé préparation tabaski ak xari ndax metti na wala wa ñu ngi leen di fay di rafetlu ñëw gi di len sante di len gëreum ndax li ñun ngeen défal facilité waaw à part loolu nag li ngeen wax moom euh, liggéey bi yàgg nañ ci ay année année ñi ngi ci parce que dañu dañoo am bëgg-bëggu xar yàlla dogal naat mu jot dañuy bàyyi suñu activité yëpp changé nekk ci xar yi waaw loolu moom mi ngi ci ren nag moom ni mu démarré moom wax dëgg yàlla yombagul yombagul xar yi seer nañ torop torop da ngay dem ci luuma pour jënd xar dangay ngay waat ñibbi delluwaat demaat ay yeneen luuma obligé waat ñibbi ab ab dernier moment da ngay obligé fi yenen luma yi ngay dem il faut nga jënd parce que soko deful do am bagage mais xari mom vraiment xar yu bax yi ñu ren. xar yi yombagul mais dundu xar yi tamit est-ce que yombuna na gis nañ ne amna ño xamne dañuy yar bu ñu màggee ñu jaay amna ño xamne dañuy dem jëndi ñew di jaay yow est-ce que man nañ xam yow yoyu ban nga ci wa ñun nak dañoo boole ñaar yépp parce que suñu suñu walu yëngatu sax yamul ci xar rek. ay nag sax dañ koy yeew at at kon nag yaakaar naa xam nañ lu ci élevage dañuy dund élevage xar it dañ koy yor at ba at duñ tàggoo xar tey boo demoon kër ga xar yu bari plus de quinze xar yoo xam ne yor naa leen temps yàgg yeneen yi dangay ngay apporter dolliwaat rek moo tax ngay dem ci marché yi pour liggéey mais xar moom dañ koy dund mais vraiment metti na trop trop parce que aliment bétail bi cher na ngooñ bi seer na coono bi bari na. yee xar manqué na bu baax a baax. xar manqué na te ni mu manqué sax ñun neexuñu ñun ñi nga xam ne yor nañ quelque xar yi nga xam ne mën nañ koo exposé wan ko nit ñi métti nañ torop parce que ñu sañoon ñëppay tabaski quoi ak Covid 19 bi nii xam nga nu mu affronté gars yi liggéey yi doxatul xam nga lépp arrêté na ba pare tombeek nag ñun jublu si période tabaski dafay métti xaalis amul si dëkk bi da ngay génnee sa xar sax bëgg ko jaay mais da ngay am problème da toog rek di xaar yàlla quoi. maa ngi tudd Gora Camara maa ngi dëkk fii jàmm gën waaw fan yi moom demoon nañ ci àll bi barki démb te démb si guddi sax lañ ñibbisi mais xar yi moom wax dëgg yàlla xar amul da xar yi seer nañ yu ndaw xar yi amuñu xam nga amuñu dara mun naa ni pël yi ñoom ñooy dem bay ràngu ay xar di jaayaat kon xam nga ne xar amul te fu ñu demoon demoon nañ Missirah dem lu jënd ay xar mais teewul foofu la gën a méttee. te jamono toll nii da ngay xool xar xar bu ndaw xar boo xamante ne xuur rek la yam ay yenn prix yi ay ay cent mille affaire noonu <laughs> da ngay reew a des tamit wóor na yàlla. waaw li may tëjee lenn la rek mooy ci wàllu autorités yi quoi nañu ubbi frontières yi xam xam ne dëkk bi mën naa ne amul xaalis amul xaalis nit ñi bëgg nañ dara mais mënuñoo génne xaalis buñ ko jëndee. nañu ibbi affaire yi xam nga xar yi mën a ñëw ku nekk jël sa wàll parce que tabaski bi ñun ñëpp ko moom ñun ñëpp ko bokk ñun bu ñu sañoon ñëppay tabaski donte yor nañ suñu xar yu baax di ko jaayee piri yi nga xam ne ñu ngi naan seer naam seerul mais suñu sañoon ñëppay tabaski parce que loolu la ñuy ñaan quoi ñu dund feet bi mu passé si jàmm xam nga ñu nekkaat si leneen. maa ngi tudd Babacar Diouf di Mbaye Diouf dëkk Diamaguène dëkk loolu moom mbiru yàlla la xam nga ñun ci yàlla rek la ñun ay jullit lañu lu yàlla santaane ala kulli xaal dañ cey def lu man xar yi seer nañ daal en tout cas seer nañ mais nag wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk ak sa ku ci nekk itam ak xar ma nga bëgg kenn ku ci nekk itam ak lay sa wërsëg rek xar ma nga war a tëbaskee rek moom nga war a tëbaskee man tonor Gaye laa tudd dëkk Hari mom, xar yi moom pour jënd dañoo ñew it pour jaay lepp lañu ñuy boole am nañu xar yu ñuy jaay dañoo ñew fi tamit pour jënd ndax léegi-léegi ngay jaay xar xam nga am ko bëgg xar jox la xaalisam pour nga jëndal ko loolu mo ñu fi indi woon waye nit ñi di jaay non lañuy jaay xar xari nak mom ren yomul ndax amul nak xari ñewul bu xari ñewon nak comme at yi passé dina xaw a tane waaye ren moom xar ñëw daanaka ay xar yar rek moo am moo tax xar lu mu gën a ndaw ndaw day seer loolu mooy problème bi kuy jënd daal yow moo ko teel a dem wuti rek balaa tabaski kee gën a sës ndax bu sësee moom gëm naa ne am na ñu bëri dun tabaski. nga teeloo ko fii tamit xar bi xam nga mu koy dund di dundee yaakaar te du la gis dafay métti quoi benn instant moo tax ñun moom suñu jaay moom dañuy toog rek client bu ñëwee bu ñu waxtaanee jugoo ñu jaay nga jël sa xar dem nga jox ñu suñu xaalis. buñ juboowul tamit c'est pas la fin du monde quoi mën nga amee feneen ñun tamit mën nañ jaay keneen.